ci préfet bi jëm ci maire commune bi jëm ci également Aliou Sall maire Guédiawaye di nuyuwaale également délégation chinoise bi fi bi amal liggéey bi tey ah, li waral nag ñu mën a jël kàddu tey mooy depuis 44 ans ñu fi dëkk leneen li waral ñuy jël kàddu mooy également Pikine Est bii lañ jàngee fii la ñu amee BFM nekk fi enseignant yi def ci war ci ñun ba ñu mën am examen wante nag dañuy seetlu ni nguur bëri li muy tabax ay infrastructure wante toppatoo bi ci war après du am te infrastructure yooyu du xaalisu parti bi xaalisu askan bi bu ñu tabaxee ba pare sàmm ko dafay am sol donc école yi stade yi dispensaires yi dañ ko war a def suñu moomeel moom ko bañ ci tuur ndoxu butit bañ ci tuur butitu jën bañ ci bàyyi également fas yi ñu ciy gaale fas yi donte borom saret yi suñuy rakk lañu mais war nañ jàpp ni ñoom aussi seeni rakk fii la ñuy ñu sàmm bañ ko soppi ay garage parce que yoon bi am na lu mu meloon association Guédiawaye ak hip hop taxaw ci defar ko def ci jardin maître bi mu bëggee liggéey liggéey bi jokkoo na ak association Guédiawaye hip hop pour waxtaan ak ñoom ci ñaan ñu njëkk pour mun fi jàll donte amoon na possibilité def ko sans jaar si loolu inclusion lañ koy wool di wax ni nag dafa am li nga xamante ne ñun la suñu wareef la en tant que population parce que bu fekkee dañuy defar ñu dellu population yi jàppee affaire yi mu leen neexee léeg-léeg am ñu tëmb ci école bi sàcc fa làmp am ñu tëmb ci école bi sàcc fa bant sàcc fa leneen ak leneen loolu mu ngi naax saayal li nga xamante ne moom lañ fi defar di wax ne nag nañ ñu dimbali pour géejawaay infrastructure publique yi ñu fiy defar ñu dimbale ñu parce que école cantine waru fa nekk cantine yi fi nekk yëpp bu ñu waxantee dëgg dëgg politiciens yi ñooy waxtaan ak gars yi jox leen fa cantine ndax xaar élection mais nañ leen ne école yi du pour loolu école day ko war a sàmm sàmm ko bu baax a baax a baax loolu moo koy protéger xale yi donc Aliou Sall ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey sànni wu ma la xeer naa si tey sànni wu ma leen xeer jërë ngeen jëf merci.